arrivage bu bees li ci bëgg rek defal te fii ci Ndiaye Getzner. ñu nag nii ay 3 mètres ay 4 mètres ba 5 ba 6. bii mooy Getzner Supermanium Gold bi laser 1 mètre 60. sa yi rafet na trop. reew na ay couleur yëpp ay couleur góor. góor la ñuy góor jigéen ñuy maabo sax. unisexe eh, la góor ak jigen ñepp koy sol champagne français mo nek ni nii ak mbagé noblesse tam am nañ ko li moy noblesse du doy waar a ni tamit moy designer wifi bi moment bi la wacc côté gi mom lañ ci wajal ni am na couleur yëpp ay góor ak jigen yëpp côté jigen yi tam amna na ay brode purha ay brode la faya yëpp ñoo nek ni diggante réseau de Dakar ak réseau de premier combat 106 kilos Cheikh Sarr ak soowu Mali waa Kabu Mangé koox la ñëw région Dakar Cheikh Sarr di Jirnda ñu ngi noonu ñu leen di jégaluwaat ci direct bi nga xamante defuñ ko du suñu ndeysaan ci waa CNG la droit drapeau chef de l'état bi dañ bu ca France ñun doomu Sénégal yi ñu xaar Sénégal a ngi noonu dëkk bi foofu la toll ndeysaan c'est l'argent qui parle eh Dakar Dakar Fatick avertissement Cheikh Sarr avertissement Sow Malikunda jal nga avertissement bëre leen acca saɗiyen saɗiyenu kende fo 66 kilos 66 kilos waa Fatick yaa ngay constaté si ginnaaw nee nañ jël am na nee nañ na waaye arbitre atawul daa mel ni arbitre jox na Cheikh Sarr avertissement ñaar sifflé waat na hangi bizim? Adam yardım hala boşum. Ne bayılan bulanır. Rekor adalar bize. Adam yardım hala boşum. Serh daw na jël ko. Ne bayılan bulanır. Serh yanu na ko. Serh daan na ko. La la xay la la jëlal ko ci boppam. Jëlal ko ci boppam. Jëlal ma ko suba. Fatick 1 Dakar 0. Fatick oh, Dakar Zero. daaw Desa Dakar mau gagné woon chef de final ci kaw Fatick Cheikh Sarr a ngi final mun Ngor ñax Mbay job allo Ngor ñax Mbay job avantage pour Mbay job Ngor ñax moo am ben avertissement ngi mu ngi koy contact allo allo aca waay Mbadiop su mi-temps Ngor Niakh day ñàkk mi-temps ba ñëw Ngor Niakh Mbadiop Ngor na ko mu rëpp jógaat ñax ma jóob avantage pour Mbaye Diop mun na gérer temps bi avertissement pour Mbaye Diop

Tā bi léegi mu jeex bu jeexee Mbaye Diop day Get out of

victoire datar, Dakar 1-1. Acha Ahmed Diop double moteur Sini Bargui Sini 86 Dakar Ahmed Diop bu Palmarin 86 kilo Fatih. Sini bu barñi Amet Jox Sini barñi Amet double moteur final. amul kenn ku am fii Zambro demi final benn premier combat bi amoo ko de. donc daa fekk ñuy am. mais ñoom man si. non baari bi la baari la. Ahmed Dior Seny demi final 1-1. combat bi moo nar a déclenché. danu mudra mura ra gujumane. Eyaro de gudo nangera laganu mudra mura ra gujumane. Eyaro de gudo nangera laganu mudra mura ra gujumane. Eyaro de gudo nangera laganu mudra mura ra gujumane. Eyaro de gudo nangera laganu mudra mura ra gujumane.

avertissement pour avertir arbitre bi siflé waat na Dior Sine koy mboot Ameth Dior daan na ko wala Sine mboot na ko Sine bu bari mboot na ko arbitre bu la la yëkkati arbitre yëkkati rouge nee na Sine moo daan अर्जुन बिना एकटी तरफ अर्जुन बोले एकटी तरफ dañuy changer verdict bi wala ko ko waa Fatick nee na dañuy bindu recours Aïcha mi ngi noonu recours daa amoon fii diggante Amet double moteur Fatick ak Sini bu Bargny Dakar bi ñu xoolee image yi verdict bi arbitre bi joxe moom la ñu validé kon Sini moo daan Amet Dior Dakar 2 Dakar 2 Fatick 1 Barazan ñu ngi noonu bu daane Dakar day dem final dafa bu da bu Bassoul ndeysaan di bëgg waa Bassoul waa Thialane waa Falyamounde Bassoul Bassar ñoo jor jon il di Saalum yëpp ndeysaan comme ñoom nuñ koy waxee ñoo joor ba fayaako siyaar nañ leen waa Bawut waa Maya waa Siwo Selemele Cap Manguekho région de Dakar Pape Bouda Bassoul Pape Bouda Selemele Mele Mele pour donner la victoire à Dakar Fambouda pour donner l'espoir à Fatick Mele Mele Fambouda Kambuda Sele kott na loxo ba da tenu na de jël avertissement ñu ar bi soufflé waat na Kambuda ndeysaan di bëgg waa Njom 100 pour cent di Yoro Ndiaye doomu Fadial Tamsir Jogo Ndong doomu Fadial Dieng Ndao Lamine Janko Pape Lomba sa Dibor ziar naa leen bien saa saar docteur Biro saa maa koy bëggee Abdou Kibiano Janko na mu ngi noonu Sélé Fambouda ñoom Duda maa ngi leen di siyaar Babacar Ndiaye Ñaaxar Ibrahima Bakhoum wala Ibou borom Lul Sessène ñoom 100 pour cent club TV ñoom Samari Ngom ñoom amat pa. Gora Diouf Tamba Ding sama père ma ngi koy siyaar Maye kor Diouf futur maire de Toubacouta gor di sen borom caajaay Tafa Ndour wala Tafisko borom mbin moo di atena mita Selemele Pambouda waaye Petit Sarr wala Saliou Sarr doomu ko wala président Fox Club Lamyn TV maa koy sama grand Younous borom Samba Dia Tunkara maa koy bëgg bu baax Selemele Pambouda jàll na ko Pambouda la xay ramas na Modou Babacar Léone mi nee na bañ Fatick 2 Dakar 2 Ibou Ndiaye ak Fils Batlin ñoo ci des mi ngi la finale de la demi-finale borom xel yi waxal la finale de la demi-finale diggante Dakar ak Fatick Ibou Ndiaye Obali doomu Diofior ak Fils Batlin doomu Dakar di représenté Fatick doomu Fatick di représenté Dakar Fils Batlin Ibou Ndiaye war na ko ndombo Fils génn na jeex Natal oh oh c'est désolant ndeysaan oh oh oh. ñu ngi noonu tas na ba suba final Kaolack Dakar final Kaolack Dakar suba incha allah.